nga xamné mom moy mooy bésu tey di bésu euh biñu tuddee bésu sétal té ñu amone interruption euh, liée ak li nga xamné mom moy mbassmi le euh, président de la république nak le 4 décembre 2021 euh, lancé woon reprise bi à Dakar bi mu lancé reprise bi jotoon nañu am le 2 le samedi 2 janvier benen bésu sétal ci benn région muy la région de Saint-Louis euh, Benin bésu setal le 4 euh, euh, février fële ci Sédhiou amon nañu Benen bésu setal le le 5 mars fële ci li nga xam ne le 2 avril ñu ngi le département de Pikine le département de Kër Massar te département de Pikine tànneefu département de Kër Massar nekkul rek ne dafa ñëw rek waaye dafa top ndigalu président de la république yéen ñëpp xam ngeen contact bu président de la république am mu nekk contact direct ak population yi ci li ñu de jokkoo ak Macky euh, mu échange euh, bu yàgg yàgg échange interactif euh, diggante son excellence monsieur le président de la république ak population ñi nga des départements Nous avons le def département de Pikine ak département de Guédiawaye euh, de de Kër euh, euh, instructions pour que nous fassions des plan nous anticiper ak ci li pour que nous, indi li nga projets projet qui dans la banlieue mais également un y projet yi nga savez... war nañ euh, fii ci banlieue bi pour euh, répondre euh, bien sûr ci li nga xamné mom la population yi doon wax gis ngeen aussi ci Joko ak Macky bu département de keur Massar xalé yi waxoon nañ ci problème problème mu xëy ndaw ñi ci sasi le président de la république jox ndigal ki nga xamné mom Samanatango, sama natango le ministre en charge de l'urbanisme pour wax ko ni

Euh, ñu yokk ci lim bi nga xam ne jëloon nañ ko si njëlbeen euh, tey ji nag ñu ngi fii ci route de Boune bu euh, de Boune ñëpp xam nañ ne route bu encombré la waaye damay wax ne préfet ak ñi mu àndal ñëpp maa ngi leen di wax ne fi ngeen teg seen tànk foofu la. ministère de l'environnement mënul topp arteru Sénégal yëpp di leen repoiser. donc il va falloir que rapport avec ñi nga qui ont dañ leen jël ci xëyu ndaw mais population yi aussi impliquée les maire yi impliqué